for tubaab yaa ngi wax rek juróom fukk yu ma dese yooyu laa jënd crédit juróom fukk ak àngale mën na laa xamal ci crédit nga di wax bëri démb ba tey mais loolu ah, jëndu la fat fat fat lu la fat loo jënd si crédit dina la si jox hundred percent bonus juróomi dërëm am àngale sax hundred percent hundred percent bonus ñaar fukk ak hundred percent bonus juróom fukk million sax hundred percent bonus ni jaay ko dee li nga jore bu dikkee amadi a bon bilay a soxor lum ni nga yore ko ci biir kër gi waxuloo ma ko waxuloo ko ija bilay a bon ah, ma dem jëndi eh, ija kay ga jëndale dama laa ma woote xoolu ma ko sax eh kay kay kay ka dikk a ah, di na di ma ni na kay hay hay dikk na di wayu fat na di fat fat yaay xewal ci kër assalamu alaykum ma ngi tura aliou sañang ma ngi yus kiwsel fat fat kiwsel fat fat am na njëriñ si nawet gi so bëgg yus kiwsel fat fat jarul nga duggu ci ndox bi da ngaa call sa customer bi mu yone la kiwsel crédit bi ba pare kiwsel fat fat am bonus 100% bonus mo fa nek so yene 5 dollars di nga am 5 dollars bonus so yene 10 dollars di nga am 10 dollars so jëndee 25 di nga am 25 bonus so yene 50 di nga am 50 bonus kiwsel fat fat do si sona do jël di xoosantu wala sa kàddu di scratch loo mun a def rek mooy da ngay woote ñu yónnee la mu gën a gaawee salaamaaleykum ntelem Boubacar Marena mesterin ker serine kiusel fat fat ñing ko le use kiusel fat fat ñi abete mo min 100% bonus wala bije ne 5 dalasi sang e ka 5 dalasi soto ne nanga mo say ko nanga mo soto bonus abete mo de mbadi ngol mbal de mala ko mbal ya marla bidigi tiol be ni sama hani sama fombe kerin tol kilianol aman jer fayta banda fang yak kiusel kredi ko ñin sang fat fat ñin yebiti kitiyo kola sa kiyena nole ya dundi andi te batala hani hani domanding so mbani juber lala ani momo mi yalan ko sim kado be bulu ya mara natare ka natare buka fat fat yusnu sai ese fat fat ñin tano wala soniata and wala fananda diata parce que abe temo mi ndata 100% bonus wala bije ne 5 dal 600 ibe 5 dal sur la je bonus percentage ne 50 sang ibe 50 restaurant sur la je 100% bonus wala bije abe temo mi ndata mbal be ya mara momo buka fat fat yusnu sai ya start ka fat fat yusnu wala soñaata an wala fanan cipta assalamu alaikum min ko mari keta mi wiyete min ko talindi mi jeya miɗo haala affaire fat fat kiwsel fatwa on ko mune haalde kiwsel fatwa ɗon no weli ha kiwsel fatwa ɗon ko piiji buyna ton fewno kiwsel ne promotion ka fat fat 100% promotion ɓe addi fewno ɗon sa soodi kiwsel 25 dal eh, 25 dalasi Eba 5 dalasi sa soodi 10 dalasi Eba 10 dalasi so I a soodi 25 dollars My bonus of 20 25 dollars fof kala ko wawɗa sodde the same bonus heɓata uh, fenɗo ko yimɓemen uh, naati e ndungu crédit on joni fatfat on no weeli ha a jotto ka suudu ma koola ɓenoldanama crédit on hara no yombi ha joni crédit fatfat ala hoosugol ala over scratch naata ko a straight ka mobile ma waɗa kool fatfat on ala morom fa farfana weli ha mbokk yi ñoo seetaan gannaaw bi ñu jógee si shot commercial break boobu gis ngeen lan la customer si am pour wax si lii di Fat Fat service bi leen di Qcell di jox ah, su ko defee promotion bi dégg ngeen naka la ah, képp ku jënda si face value si nga am lii di 100% bonus lii kenn mënu koo am fenn lu dul Qcell ah, nawet bi jot na nga yónni xaleel mu rotal carte bi si biir ndox nga war am pour call wan wan wan ñu recharge la loolu yëpp time la waaye Fat bi mu ngi fi sax ne borom bitiki rek a ko mun a jaay yow mu ma seetaan soo buggee jaay fatfat di nga mun a jaay fatfat looy def yomb na koolal Qcell si 111 wala su nekkee ne soriwuloo Qcell nga ñëw rek wax leen dama bëgg a jaay fatfat ñu wala procédure si naka la nga jaay fatfat bi dafa baax na baax na waaw xanaa tubaab yaa ngi wax rek. juróom fukk yu ma dese yooyu laa jënd crédit. juróom fukk ak hangale mën na laa xamal ci crédit nga di wax bëri démb ba tey. se laam lépp loo jënd si crédit dina la si jox 100% bonus. juróomi dërëm am hangale sax. 100% bonus bonus. ñaar fukk ak juróom. 100% bonus. juróom fukk. million sax 100% bonus. saa ni jaay ko dee li nga jore bu dikkee nga amati a ah, bon bila yaa soxor lum de hmm. yow xewal gu tol ni nga ko ci biir gi waxuloo ma ko waxuloo ko ija bila yaa ah, bon ma nga ma dem jëndi eh ija kaay nga jëndaale dama laa jënda crédit ma woote xooluma ko sax eh kaay ah, di ñëw di man ko na kay hay hay dikk di wayu fat fat gaaw na di fat fat yaay xewal ci kër yajinma ma mu ne ko gara gari nangam sangam yajinma eh, eh bilay alaaji fay ma ngay eh! way de alaaji fay waaw xanaa yow fa nga dem ba dikk dem fan a ah, yow waa ji du ñetti yow ta dikk bi du ñetti waxtu la waa ji ne woon ngeen daje ah ki ma waxoon de may ñoo liggéey waaw waaw waaw ñetti waxtu la ma waxoon kay ah ban waxtu a jot noonu sax ñetti waxtu teg nga fukki minute ak juróom bi ah déedéet loolu kay taxul may liggéey ndax xam naa ne lu ci mën a xew moom ah, fii bu ñu la ne ñetti waxtu sax bu la neexee nga toog ba juróomi waxtu xam nga sama maam fa ma doon wax loo xam ne. waaw mu ne lu a du nekk nga nekk ko moo gën. moom dina ma xaar nag dina ma xaar de dina ma nekk waaw. waa jógal préparé ñetti waxtu jot na. waaw ñetti waxtu jot na jógal dem balaa ngaa tardé. ma sangu waaw léegi point fu ma naan lewoon maa de. moo sangu xëj na ma dina ah di dinaa sangu nag ah kuy seet dina foog nga sangu nag ah. a ah. waaw waaw ah. waaw ma de yow waa ji dina ma jox awa ah, Seydou abal ma juróomi téeméer bi ma ñëw. dégg nga fu ma nekk ni kay. awa ma fi kay xanaa nooy nga jaar si bu ma demee ne Amady eh, moom a yoon dina ma jox. juróomi téeméer am yi ñu caa fa nekk. loolu a jiw ab kii la Baye Matar Sarr. waaw mu xaalis bu mu war a jëndee jiw. moo la fa dénkaane waaye comme que xaalis gi dina dikkaatee. aywa loolu déet déet na leer de. man de naa incha ma ñëw dinaa la de duut ju ne nga dem marché ma loolu juróomi téeméer boobu dama ko waxati sax awaati damay jox. ah ma bañu ma ko waaye xanaa kon di nga si yokkal Baye Matar Sarr. ma góor daal ma lu bari waaw baax na waaw dinaa wa jaar mu jox ma juróomi cere dégg waaw ma ne ko amat rek nga waaw baax ah, inja ah mbaa kay mbaa fekk nga fa waaji ah, waaji kat fa hmm. ma suma kër gi juróom-ñaari waxtu suba laa da moo taxoon ma ne la xoon noo mën a def na nga fajaru dëkk hmm. ma ne ko man ka dikkoon naa fi waaye ñu ne ma yow ñeenti waxtu ngaa wàcc waaye bu hmm. ñeenti waxtu jotee fa ngaa dellu waxaat juróomi wax moo tax ma dikkaat rek mu ne comme sa bàyyi na ma waa ji daal fa respecté la ñoo wax euh, xaw ma nu nga wax waxtu fa ko respecté taay ma xaw ma hmm. mu ne moo fa ko respecté waxtu moom la jox daal su ko weesoo jëlatul ngaa dëkk ndax boo dëkkee faa foo ne bés bu ne noonu la ngaa def waaw wax na dëgg de ah nijaay loolu la du man rek di dëkk bi yëpp fa ñoo tardé eh, du gën amul looy toog di wax naan man kenn fi yeneen maa dajee keneen loolu jaru ko moom waagaan mbaa jàmm la eh waaye yi lu xaw mbaa jàmm amat kay yow yàlla rek am accident xanaa waa ji fa fa am lu ko jot fa dee fa dox fi kii ge fa yaakaar ne xoto fa ko fàdd xoto fa la fàdd déedéet wallaay xanaa nga jotee mba mba xabaar nga jotee